autorité notable ak askanu mbour yëpp ñoo daje ca quartier Tefes ngir wàccee kamil ñaanal ñi dess ci mbëkk mi tay dañ dajalo euh ñew pour ñaanal ñi nga xam ni euh ñak nañ bakkar sen bakkan ci géej gi te gis nañ ni ko mbour tuddu nañ ko ci tuddat ko ci te bëri na trop ñi nga xam ni euh, ay wa nañ te ñak sen bakkan ci donc luñ ci wax rek mom moy message bu ñuy euh ki nga xam ni mom moy président de la république Macky Sall diko wax ni ko dégg nañ ñi nga xamne ne ni mooy jaraf bek chef de quartier bek imam yek wa kilifa dekk bi wax ni ko amna ay solution yu ñu wara mëna trouver amna ay solution te parce que ñu déwén encore une fois ñëw taxawat fi di wal ay kamil pour ñaanal ay nit ñi nga xamne dañoo encore si aduna bi donc nak il faudrait que état def une réaction rapide dal di ñëw jappalé ñi nga xamne ñu ñoom ñoo dëkk mbuur autorités yi paré nañ diko talal loxo Euh, jeunesse bi paré nañ à ce que ñu ñëw ñu tok ñu waxtaan trouver ay solution parce que solution cassé nañ mëna a wut pour éradiquer définitivement ce fléau là. jaraaf bu mbuur ñaawlu bu baax phénomène bi lé ñuy ñant si borom gal yi nga xamné ne ña ngi dem té xalé yi dem kèn du yegg bu ñay dem do xam gal gi ñu dugg fi mu nekk nii déegi bari na dé wante kèn man la totoo ne nangama dé dégg na buñ ko la mëna xam ñaari weer ci kanam. ba nga xam ne ki war a àgg àggul ki war a oññaku oññaku na ki ña gisul nag ña xam ne dee na wante ñuy ñaan si yàlla lii fi des yal na fi yàlla jëlee ti géej gi yal na ko yàlla naatal. aljuma ji nekkoon bés bu ñu jagleel ñi faatu ci mbëkk mi mbuur màggal na ko ak ñaan ngir fàttali rek mbuur joju bokk na ci ñi ëpp ñi seeni doom des ci ndox mi.